salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaw cheikh bi mbaa yéen ngi ci jàmm noo ngi lay ziar di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal nu jàmm waaw kii li wax nee na benn xaritam moo ko doon nettali mu ni xaritam bi dafa dégg yaayam di ñaan seen dëkkandoo bi xorom maanaam yaayam moo taxaw ci buntu këram di yuuxu dëkkandoo bi di ko ñaan ne ko may ma xorom diw dooma may xorom foofu nee na bi ko xarit bi déggee mu ni ko waaw yaay lan moo tax ngay ñaan xorom suñ dëkkandoo bii te man démb rekk jox naa la ravitaillement ma ñu war a dundee ci mois bii yépp te bi ma la koy jox am na saako xorom bu ci nekk lu tax ngay ñaan xorom kon nee na yaay ji ni ko Euh, suñ dëkkandoo bii de dafa nekk dëkkandoo boo xam ne bu ñàkk la lool te bis bu jot day ñëw ci man di ma sàkku ndimbal yenn saa muy ñaan jimboo bu mottalee yenn saa muy ñaan xorom yenn saay sax day ñaan poobar yenn saa day ñaan kaani yenn saa yi mu ñaan ma këriñ li may ñaan daal bari na te li ko waral mooy ak ñàkk gu metti ci moom te yenn saa yi sax dafa may bëgg ñaan waaye damay gis ne day am kersa ngir ñaan ma neena yaay ji ne ko loolu moo tax nag ma taxaw fii tey di ko ñaan xorom ngir mu yëg ni ñun ñëpp benn lañ ci yàlla ku ci nekk day am soxla ci sa mbokkum jullit di ko ñaan ndimbal dama bëgg rek mu yëg loolu bu ko defee ëllëg bu amee soxla ci man mu bañ mu bañ am kersa nee na loolu moo tax muy def loolu pour rek man koo firi mën koo def mu firi nee na looloo tax muy ñaan xorom waaye moom ñàkkut ko waaye dafa bëgg a yëgal mbokkam bu ñàkk boobu rek ni ko jërul ngay rus boo amee soxla ci man ndax ñun ñëpp benn lañ ku ci nekk day soxlaal sa morom loolu loolu mooy loolu mu bind léegi nag loolu mu def nag euh, mbir la boo xam ne bu am solo la xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nekkul woon ku am nekkul woon borom am-am maanaam nekkul woon riche waaye lu ko waay masaana ñaan lu nekk dana la ko may su ko amulit dana dalal sa xel ba mu dal lool ba nga yëg ni kii su amoon dana la jox loolu mooy dëppook laaye ji sunu borom tabaraka wa taala di wax ci alquran naan wa amma saaila fala xar yàlla nee na su fekkee nit ñëw na ci yéen ñëw na ci yéen di leen laaj laaj bi nag moo xam wàllu diine la wala wàllu alalu àdduna wala ndimbal lu mën a doon rek moo xam sax mu lay laaj diineem surtout yenn ustaas nee na su la nit ñëwee di la laaj nee na bul ko bul ko bul ko bul ko bul ko gëdd maanaam bul ko ñàkkee kersa bul ko tiital daal boo mënee jox ko boo amul nga dalal xel mi tekkiwul nag ku la laaj jox ko loola nit ñaan nga may ko tekkiwut loolu waaye li muy tekki mooy lu la waay laaj yow bul ko tiital bul ko euh, ŋàññi bul ko ni li ngay wax bari na nangam sàngam bul ko bul wane ak rëy rëylu ci kanamam soo amee may ko te yàlla tax soo amut nga daal di dalal xelam loolu la sunu borom tabaraka wa taala digle ci loolu euh, ñu baree bari nag léegoo-leeg nit ñi tey suñ ñëwee di leen laaj di ñaan ñaan gu bari dañuy dem a dem ba dañ leen di commencé di ñàkk wóolu wala ñu di leen mm, gëdd wala ñu di leen toroxal li ko waral nag mooy ñu baree bare ci laajkat yi dañuy jëfandikoo ni kat soxla sàngam la am te fekk du dëgg dañuy laaj wala ñuy ñaan te fekk du dëgg man nañu wax ni sax dama bëgg masalan defar juma wala li dañ ko yobbu ca juma ja wala sama soxna da febar wala nangam sangam teg ben lay bo xamne dana tax bu laaje ñu jox ko fekk du dëgg lolu bari na waye nak su su boba sax yow bul ko bul ko gëdd bul ko toroxal bul ko ki waye rek fataliko fataliko ben hadith bo xamni ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moko ko dang ko koy fatalil bu ko defé mom dina xam boppam ni nga ko koy fàttale mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni yaa ngi laaj doomu aadama yi alal ngir yokk sa alal ba mu bari maanaam yaa ngi laaj amoo soxla amoo dara amuloo ku feebar amuloo problème waaye dangay ngay rek ngir yokk sa alal mu gën a bari di dajale yonent bi nee na képp ku koy def na xam ni mi ngi laaj sawara maanaam mi ngi mi mi ngi mel ne kuy laaj ay xalu sawara di ko denc léegi nag moom mooy seet bu ko neexee mu mu baril bu ko neexee mu tuutil noonu la ko yonent bi waxee kon ki nga xam ne mi ngi laaj alalu nit ñi te te bari alal moo tax mu di ko def maanaam amut soxla amut yitte amul benn problème amul jafe-jafe waaye mi ngi laaj ngir balil baril alalam yenent bi ne na mi ngi laaj sawara lu ko nit ñi jox rek sawara lay soppiku ci moom bu ëllëgee yowmal qiyaam noonu la ko sunu borom di dajale tàbbal ko sawara léegi nag moo xam na laaj lu bari wala moo xam na laaj lu tuuti loolu mom nako ñëpp ñi laaj bàyyi xel kon laaj mënul ñak waye na nek ko xamni day fekk mu am aajo am soxla lol ñak dikkal ko wala kërëm fa ñu fagaagal ko wala yu mel nonu wallahu taala alam wasalaamu aleykum wa rahmatullah